yeah guys what's good what's good it's your new boy Lord Wes guys salaamaaleykum salaamaaleykum daal di am sur ma chaîne YouTube Wes TV comme ni ñu koy faral di defee chaque fois bon gars yi tey dañuy ñëw def benn genre chronique bu nice si li nga xam moo la diggante Elzo Jamdong ak Dip Doundou Guiss mais balaa ñuy yegg si li nga xam ni moom moo di générique bi à partir d'aujourd'hui bi mooy dernière vidéo boo xam ni naa ko jël bu rap dugal ko si YouTube léegi rap bi dama koy transféré si li nga xam ni moom moo di Instagram mu réaction vidéo nouveauté yi bagage yu doom yi ay chronique foofu laa koy concentré wu quoi seulement Instagram pour séparer ñaari affaires yi parce que si YouTube damay continuer li nga xam moo di actualité mais ne moom moo di ay euh, ay si li nga xam ne moom moo di YouTube si plateforme boobu noonu ay live rek li nga xam ne moom moo di actualité mais chronique rap bi moom wax dëgg fa yàlla Instagram la kon képp koo xam ne da ngay suivre Wes Show ndax rap ak ku ko suivre woon naa aussi tam nga dem suivre si Instagram parce que ay bagages yu doo dina ñëw mais balaa ñuy dugg si loolu noonu si li nga moo ñu fi indi générique. West Show let's go nañ ko tëgg after coole ya. Oh, Aya si waaye matadi kasara awaga si waaye matadi kasara mara oh, ok gars te dañu ñëw wax si ñaar rappeur Elzo Jamdong ak Dip Doundou Guiss la ñuy ñëw waxee am nañ problème wala amuñu problème man je confirme man personnellement. defoon naa fi benn supposition mais léegi je confirme la moo tax may confirmer dinaa leen expliquer carrément événement yi nu muy demee c'est pas parce que dama xam rap mooy tax may wax mais damay lire damay xool li nga xam ne moom moo si yow mi aussi tam mën nga am sa pensée mën na nekk sa pensée nga respecté aussi tam li nga xam mooy sama opinion bu leen fàtt ni Elzo jam donc bu mu ñëwee si game bi dafa am benn rappeur boo xam ni moom la njëkk a defal li nga xam ni moom moo di featuring moo di Omzo Dollar wuy sama nday ah boobu la ñëwee quoi boobu noonu nag Elzo profité na si Buzz jamono ñu moo doon bomb boo defee featuring ak li nga xam moo di Buzz Lab da am benn genre visibilité de même que jamono ku def li nga xam ni moom moo di featuring ak Dip Doundou Guiss am li nga xam ni moom moo di visibilité noonu la demee woon Elzo en a profité def na li nga xam ni moom moo di son ak Omzo Dollar ñépp xam nañ ko ba boobu la waxee ñaari zo yi ñooy bomb boobu mooy premier deuxième bi Elzo Jamdong def na benn son ak ki nga xam ni moom moo di Dip Doundou gis mu tuddee ko Ney Dip Ney Dip boobu noonu nag benn son boo xam ne ñëpp. amee nañ ko fans Dip yi fans Elzo yi booloo nañu mu doon benn genre fan base boo xam ne ñoom ñaar créé nañ ko ah te jamono jooju nag y avait pas dañu wax ne dëgg problème at li nga xam moo di Elzo ah, Dip Omzo Canabasse y avait pas de problème affaire baa ngeen doon doon nice mooy maanaam clan yi ñëwul kon déjà fans yi yooyu noonu yëpp jaxasoo woon nañ ko waa képp xam da ngay Omzo Dollar da ngay siiw Elzo Jamdo da ngay siiw du Doundou Guiss parce que benn genre surtout la fans yi ñoom ñoo nekk foofu noonu en ce moment là rab mu ngi doon dóor quoi en moment là rab bi mu ngi doon bomb yaa ma gën a nëw mais nag dafa am benn point boo xam ne dañ fa yegg fan lañ yeggee mooy bi clash bi commencé si la gars kenn xamul fu muy taxaw nag wax dëgg fa yàlla nga jugee fële je défends Omzo fii nii nga ju nga je défends Elzo nga jugee Kaaw nga ñëw benn waay gars yi faa la si loolu noonu nga fitiri nga benn waay gars yi faa la si loolu noonu il faut nga nekk benn nit boo xam ne doo xam fooy taxaw ñaari solution moom soit nga ne man boo ko masee wala nga choisir kenn nga ànd ak moom Elzo choisir li nga xam ne moom mooy wax dëgg fa yàlla méthode bi gën a sage mooy man boo ko masee ñoom ñaar ñëpp samay gaañ lañu wax naa sama boo leen mënul juboo leen wax dëgg fa yàlla da nga siy te Elzo loolu la def du dëgg ñu avancé nag li nga xam moom moo di kanam Dip nangul ko loolu Elzo Onzo nangul ko Elzo même bu fekkee ñoom ñaan ñu ngi chamayo Elzo moom do ci nekk ku mu naan ak dëgg concert mu bëgg dem foofu noonu day free comme moom nu mu tuddee woon boppam ah, day am free ndoom mu dem seet def li nga xam ne moom moo di concert ak ñoom ñoom bon jusqu'à présent affaire boobu nice na ñu dem si kanam ñu gis beneen euh, featuring boo xam ni Dip def na ko li nga xam moo di Elzo accompagné de li nga xam ni moom moo di Akhlou Brick pour gën a élargir li nga xam ni moom moo di public bi moo di ban moo di Fayma Money Fayma Money aussi tamit ñoo def li nga xam ni moom moo di carton entre ñun ñun relation yi di gën a ñëw ba benn instant nag foofu la ah, li nga xam ni moom moo di clan yi commencé mooy maanaam waa East Side ñoom Biggie Notorious ak waa West Side ñoom Tupac ñoom Tupac nag ñooy Elzo euh, ñooy el xaaju Elzo jam donc néeg doof gang boobu noonu lañ néegoon ah nga ñëw li nga xam ne moom moo di waa ISAR waa ISAR nga am li nga xam ne moo di xaaju Elzo Jamdong Dip Doundou Guiss euh, euh, IS814 bi Akhlou Brick Paradise et d'autres personnes ay maas gars yi nga xam ne ñoom ñoo nekk li nga xam moom moo di côté Dip mais jamono yu ñëw noonu soit nga nekk si li nga xam moo di parti Dip soit nga nekk si li nga xam ne moo di parti Omzo Dollar on parle toujours de 2017 jëm 2018 léegi nag. Elzo moom toujours foofu tam mu ngi fixé aussi digg bi gars yi nangul ko ko ñuy avancé ñuy avancé ñuy avancé gars yi li nga xam ni moom moo di benn featuring une si longue lettre boo xam ni je crois que war na nekk son boo xam ni dafa war a bokk si histoire rap galsen parce que son boobu noonu dafa dóob non seulement si li nga xam ni moo di clip bi ni ñu ko orienté vers les années xam nga yaa ma gën a nëw clip bi wax li nga xam ni moom moo di fait société yëpp la ñu dajale wax ko si li nga xam ni moo di Sénégal mais plus particulièrement dañuy joué benn acting boo xam ni ñaari nit ñoo xam ni dañuy xëccoo dara ñaari nit ñoo xam ni ni dañuy am projection boo xam foofu lañu jëm te ku nekk dafa jël li bëgg jël li nga xam ni moom moo di place bi mais loolu nag moom mooy li nga xam ni moom moo di problème mu tey boobu noonu mooy maanaam ñoom lu ñu joué si clip boobu noonu moom moo ñëw nekk benn problème bi lan moo lay waral ni gars yi dañuy am problème mooy le fait que ni Elzo Jamdong dem def li nga xam ni moo di benn featuring ak Nit Doff comme ni Aara defe li nga xam ni moo di benn featuring ak One Lyrical foofu ngay comprendre ne carrément ñaar ñii nii am nañu problème parce que bu njëg ba boo leen gisee ni ñu defee issaay wessaay boo ak Elzo lu mu nekk nekk si dëgg bi defatul li nga xam ni moo di fit nii pour li nga xam ni moom moo di Elzo Dollar defatul fit li nga xam nii pour Dip parce que day bañ li nga xam moo di conflit d'intérêt ah te tey ji nii boo bëggee dégg-dëgg fii nag Dip laay défendre parce que je crois que di Dip ñaari ennemis jurés la am si li nga xam moo di rab Galsen euh, euh, One Medical amul du problème noonu Hakiil du problème noonu nga xam leen du problème noonu mais ñaan yi mu wax dëgg fa yàlla am na ay contre yu muy rendre ak ñooñu chaque fois mu di Omzo Dollar ak li nga xam ni moo di Nit Doff te jii nag bu Elzo Jamdong demee collaborer ak Omzo Dollar di comprendre parce que moom la njëkk a xam si li nga xam moo a game bi moom la njëkk amal li nga xam ni moo di relation studio mais nag bu demee ba woy li nga xam ni moom moo di euh, Nit Doff te jamono jooju noonu Nit Doff ak li nga xam moo di Dip dañu am problème laa un peu wax dëgg fa yàlla Dip dina xaw a dellu quoi kon ça veut dire ne bi ñu dooree ne Dip et eh, Dip wóolu naa la booy Elzo wóolu naa la est-ce yi ñu ngi wooloon te ba léegi foofu la commencé séparer foofu moo leen di prouver ni ñaan ñi am nañu vraiment benn problème y a d'autres yoo xam ne dañuy ne benn buzz médiatique la te man ñaan naa yàlla mu nekk loolu noonu parce que ñaan ñi amoon nañ benn relation boo xam ni wax dëgg fa dafa niceoon dafa dafa kuuloon xam nga jarul ñuy yóbbu fii nii parce que gars yi bi leen invité ku nekk di wax si ñaar ñi gars yi dañu fiir li li nga xam ni moom moo di seeni question yi kenn waxul li nga xam ni moom moo xew dëggantaan yeneen compagnement léegi nag tey jii nag ñun li ñuy laajte mooy Dip yaa ngi wóolu Elzo ba léegi Elzo yaa ngi wóolu Dip parce que piquante yaa ngi ñëw ñun sentir nañ ñi ñaari gars yi ñu ngi piquante fan laa sentir ne Dip dafa pique Elzo jam donc mooy si li nga xam moo di loolu kese bi mu woy ak li nga xam ni moo di Disney xaas yi uti ko bi bi mu koy naan topp laa laa feesal di dox ni Soundiata Keita topp laa ñëpp xam nañ ko ko moom festival topp laa kan moo koy def kan ko nar a feesal Elzo jam la kon tey mu ñëwee ne topp laa laa feesal di dox ni Soundiata Keita y a quelque chose qui cloche keneen ki ñëw génnee dernier son bi nga xam moom la génnee mooy lu tax lu tax yàlla moom ma may may bind texte di bind samay texte kon tey jii yàlla fu mu fu mu la teg xam nga yàlla la quoi xam nga kon lu tax ngay xëy ça veut dire ni ba ay tontonte commande na si am comme axlu bi dëgg dib nañu amee li nga xam moom moo di tontante lii laa xam man ñun loolu la wax comme ni ko maire di waxee anaa gars yi loolu moo nekkoon li nga xam moo di chronique bu sew boo xam ne bëggoon naa si joxe li nga xam moom moo di samay participation xam nga jox leen li nga xam ni moom moo si am du ma relaté nag ay ay vidéo xam jàppale li Wes Show wax noonu la wala jàppale li Wes Show waxul noonu la mais dem leen yéen personnellement ngeen xool li ngeen xam ni moo di séquence yi xool li nga xam moo loolu nag léegi nag am nañ problème wala amuñu problème am na mais lan mooy solution bi mooy ñu fexe ñu jubóowaat wax dëgg fa yàlla parce que ñaan ñi moom wax dëgg fa yàlla ils sont très aimés te ñëpp bëgguñu ñu am problème parce que am na benn affinité boo xam ni créé en tout cas chronique yi foofu lay xewee dinaa dugal li nga xam moo di vidéo si ki nga xam ni moom moo di ñaama coow benn booy boo xam ne muy cartonné France la nekk Paname wàcc na Sénégal indi na li nga xam ne moo di benn vidéo freestyle boo xam ne dugal na ko dinaa chronique si booy yu bees yi loolu wees la woon ak yéen paa paa paa paa ni Elzo free wóolu naa la ma dégg di wóolu naa la free rap je, ben je Mexicano, nigga.